وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu sant suñu borom subhanahu wa taala li nga xamanteni mo ñu ñu wat tay ñu amat benen occasion toogaat fi ci néegam bu tedd bi ngir fatali dara suñu diine di julli si ngën ji mbindeef Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak mboolem ay ñooñam ak képp ku mës a ànd ak moom ak képp ku jàpp jaar siw yoonam ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu gannaaw bi ñu suñu borom subhaana taala wërsëgale ñu jëloon al usulu salaasa ba mu jeex ñu jël al xawaayidul arbaa tey si kàttanu suñ borom subhaana taala ñu ngi bëgg am yéene sóobuwaat si beneen téere ñu koy wax kitaabu tawxiid boobu tamit mu nekk téere boo xamante ni cheikh Mouhamad ibn Abdul Wahab rahimahullah moom moo ko taalif moo ko bind comme ni ko turam waxee kitaabu tawxid la wax téere tawxid kon loolu leer na kon liñ ciy jàngale mooy tawxid tawxid la ciy jàngale te ñun seetloo bind cheikh bi moom yi si a bari yëpp mën nañu lépp rek ci tawxid la ko bind kon moom dafa xamoon li nga xamante ni moo nekkoon responsabilité am en tant que daaya ndax képp koo xamante ni yaa ngi ne da ngay woote dafa am aw yoon wun la jaarloo te daa am ñu la fi jiitoon ñun la nanga nga roy seen aw yoon nit nag def naa booy raw booy roy aw yoonam da ngay jéem a xam lam doon def nga def ko te daa yi yëpp ulama yi woote yëpp muy borom xam yi woote yëpp si yoonu lislaam ñin leen royloo mooy yonente yi ki ci gën a mag di annabi muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moom sax moom bi mu ñëwee dañ ko ne na nga topp sa yoonu maam sa baay ibrahim anit tabix millata ibrahim na nga topp yoon wi nga xamante ni moom laa jaaraloon ibrahim mboolem yonente yépp ñoo bokkoon même mission bu doon woote li doon woote lenn la woon mooy woo nit ñi si ñu wéetal yàlla subhaanahu wa taala bañ koo bokkaale ak lenn kon képp kuy woote li ngay war a woo nit ñi dëkk mooy tawxid ñu wéetal suñu borom subhaanahu wa taala nga doogoo leen mën a woo ci leneen moo tax borom téere bi di Muhammad ibn Abdul Wahab bindam yépp daf ko sukkandiku manam daf ko lal laytaayoog tawxid jàngale tamit shirk shirk nga xamante ni moom mooy safaanu tawxid nga xamante ni nit ñi pour ñu mën a xam mbir dana leen dana yombal pour ñu xam ko ñu xam safaan bi ndax arab wax na ko nee bi biddiha tatabayanul ashya manam mbir yi ci seen contraire ci lay ci lañuy reer nit ki boko bëggee lu gàtt boo ko lu gudd rek ba mu xam lu gudd nga ne ko nag lu gudd lii lu melul ni moom mooy lu gàtt dana gën a xam lu gàtt ndax lu gudd lu gàtt mooy contraire am kon cheikh bi tamit dangay gis ci biir kitaabu tawxid da ciy jàngale waale safaanu tawxid muy ashirku billah ak xeetu bokkaal yi nga xamante ni ñoo amoon ci jamono jooju mu doon dund moom ak xeetu bokkaal yi amoon ci jamono bi nga xamante ni moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam doon woote ak mission c'est-à-dire méthode ba xam ne sal moom la jaaroon ba fexe ba tawxid mu samp ko foofu di màkkatal mukarrama ak la ko wër yëpp ba réussir si mission boobu yoon woowu mu jaaroon moom la seex bi jaar ba moom tamit yàlla may na ko si tamit ndam ba ilaa yawmina haza moom bi mu génnee àdduna yàgg na lool waaye ba suñ jamono jëmmu jamono ñi téeram yi mu bind mi ngi jëriñ ay nit te loolu li ko waral mooy sellal gi mu sellaloon ak jaar gi mu jaaroon si yoonu yonente yi alayhi salaatu wasalaam kon loolu li ñu ciy déggee mooy képp kuy woote fekkee bëgg nga sa woote am réussite li nga war a sukkandikoo mooy fexe ba nit ñi am tawxid nit ñi wéetal suñu borom subhanahu wa taala ndax si loolu la ñuy amee ci loolu la ñuy mucc ci pexe seytaane ndaxte seytaane moom moo jëkk a déclaré kanamu borom bi ne man dinaa leen xeex sa jaam sa jaam yi nga xamante ni ñuy sutu aadama di dinaa leen xeex waaye nag am na yoo xam mënuma leen dara seytaane mu ngi jëkk a déclaré mu ne illa ibadaka minhum almuxlasin dinaa xeex sutu aadama yëpp njabootu aadama yëpp dinaa leen xeex pour jàddal leen yoon waaye nag sa jaam yi sell yi sellal yi ñu am ixlaas yow yàlla mënuluma leen dara kon nit ñi fexe ban sellal seen jëf wéetal ci yàlla def naa ne loolu la ñu war a gën a ittewoo def ko bala leen di woo si mboo yeneen xeetu jaamu yàlla wala ay jikko yu rafet ndax niñ jàngee siiratu rasul sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee dana innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yëg leen ne dañ maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi liñ ciy déggee mooy fam nekkoon avant moom muy ñëw amoon nañ ay jikko waaye matul woon jikko yu rafet amoon na fa waaye matul woon ndaxte jikko yooyu ñu doon mu rafetoon ñu amoon ñoom daawuñ ko dina def ngir yàlla daanañ dimbali ku néew doole waaye yàlla taxul woon ndax ñoom wéetuloon yàlla xamuloon sax yàlla daanañ bu nu amee gan dinañ ko teral daanañ tabe loolu lépp daanañ ko def waaye yàlla taxu woon puukare moo tax ñu ko daan def ak wane sa doole waaye yonte bi alei salaam dafa ñëw pour samp li nga xam mooy tawhid ba ko sampee pare nag li mu bëggoon yëpp am na ko ñu ne buñ bëggee xam jàng tawhid ak contraire am muy shirk importance bi mu am dañuy dellu ci benn téere boo xamante ni moom la cheikh ibnul qayim rahimahullah bind ci al boo fa demee ci page cent neuf li ñu fa gis mu bind fa wax bu am solo mu ne axbara subhanahu an al qasda bil xalqi wal amri an yucrafa bi asmaihi wa sifaatihi wa yucbada waxdahu laa yushraka bi ibnul qayim mu ne suñ boroom subhanahu wa dafa xibaare xamal mu ne li mu jublu ci bind gim ñu bind li mu jublu si loolu ak ndigal yi muy joxe li mu si jublu mooy ñu xam ko moom yàlla ci ay turam ak ay melokaanam ñu xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam te wa yobada ñu jaamu ko waxdahu moom kese laa yushraka bihi kenn da ko bokkaale yàlla lim jublu ci bind gii mu ñu bind wàcce ñu ci kaw ak wàcce gii mu wàccee alquran mooy ñu xam ko ci ay turam ak ay melokaanam boo jàngee alquran dana lay xamal turay yàlla yi ak melokaanam yi mu ne nag ñu jaa wa yobada ñu jaamu ko waxdahu moom kese ñu jaamu yàlla kese laa bi bihi kenn da ko bokkaale mu ne wa an yaquma an-nas bil qist te nit ñi tamit taxaw ci malufé manam nit ñi ñu taxaw ci malufé nga xamanteni wa huwa al adl alladhi qamat bihi as-samawati wal ard manuté go nga xamanteni ci la yàlla samp asaman ak suuf loolu la yàlla bëgg nit ñi tamit taxawé ci kama qala taala kom ne ko sun borom subhanahu wa taala waxe ci suratul hadid mu ne laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna maahum al-kitaba wal mizana li yaquuma annaasu bil qisti suñ borom moo wax suratul xadid mu ne laqad arsalna waat naa ne sa dëgg-dëgg ndaxte laqad lam bi giñ la mu watta alil la ko waa nax yi wax mu boole ci xadd te xadd bu àndeek fi'lu maadin taxqiq la maanaam day gën a dëggal li muy wax kon yàlla dafi dafi boole ñaari feddal yi dafa waat ba pare dëggal li muy wax mu ne laqad naa waat naa ne sa dëgg-dëgg man maa yónni naa samay yonante bil bayyinaati ci ay lay yu leer yonante bu yàlla yónni rek jox na la ay lay yu leer yuy firndeel ne yàlla moo la yónni nga indi tamit lu leer loo xamante ni moom ngay waxal nit ñi te day leer naa ñi kenn du si mën a teg dara mu ne wa anzalna maahum ma wàccee ànd ak yonente yooyu ba ma yónnee yonente yi damaa wàcce ak yonente yi alkitaaba téere bi yonente bu ma yónni rek jox naa la téere wal misaana ak peesekaay bi balance nga xam ne si nga mën a balancer dëgg ak caaxaan pour lan mu ne li yaquuma annaasu bil qisti pour nit ñi taxaw si maanute kon yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg dundu doomu adam yi am équilibre jub motax mu wàcce mu yoonu yonente yi pare jox leen ab téré téré yoy nak ñoy balance mi nga xamanteni nga mëna balancer dëgg ak tiaxan ndax lépp lo xamanteni indi nañ la ko pour nga mëna xam ndax dëgg ak tiaxan la il faut nga tek ko ci mizan bi lan moy mizan moy alquran wa sunna ndax loolu la yàlla wàccee ibnul qayyim continue mu ne fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu li yaquuma annaasu bilqisti wa huwa al adl mu ne suñu borom dafa xibaare ne moom moo yónni ay yonenteem wàcce ay téeréem li yaquuma naasu bil qist ngir nit ñi taxaw si maanute te al qist mooy lan mu ne wa huwa moom al adlu mooy maanute yemale lépp lu ne nga teg ko place ba nga ko war a teg mu ne wa min aazamil qisti at tawxid mu ne maanute gi gën a màgg si maanute yi mooy tawxid mooy wéetal yàlla ndax bu ne maanute mooy lu ne nga teg ko palaasam ki gën a yelloo nga teg ko place mooy suñ borom subhanahu wa moo tax wéetal suñu borom mooy aazamul xisti mooy maandute bi gën a rëy te ci maandute la suñ borom bëgg ñu taxawee ko kon tawxid moom la ñu war a tàmbalee mu ne nag wa huwa moom tawxid rasul adli mooy wax maandute wa qawaamuhu mooy tànk yi muy taxawee tamit sans tawxid maanute mënul taxaw boo joxul yàlla cëram mënoo jox keneen cëram boo ko joxee boo joxee keneen cëram tamit du am sens mu ne wa anna shirka zulmun ñu ciy léegi mooy wa na shirka bokkaale zulmun tooñ la lan mooy tooñ tooñ mooy lii nga war koo teg fii tegoo ko fii kii ma war koo jox lii joxuma ko ma war la jox sa xàq pare joxuma la ko loolu mooy tooñ ñu ne nag tooñ yi si gën a rey nag mooy nga tooñ yàlla mu ne kama qaala taala comme ne ko suñu borom waxee suratul luqman inna shirka la zulmun azim yëg leen ne bokkaale day tooñ gu màgg la bokkaale tooñ gu màgg la def naa tooñ tooñ yi si gën a màgg mooy tooñ yàlla mu ne fa azlamu zulmi togn moy manam bokale moy togn gi gën toñu moy togn gi gën a rëy si yi fashirku bokale azlamu zulmi moy togn gi gën a rëy si yi wa tawxiidu tawhid wetal yàlla ahdalul adli moy manu te gën a rëy bokkaale mooy tooñ gi gën a rëy tawxiid mooy maandu te gën a rëy mu ne ibnul kontinu mune fama kana ashaddu munafatan li hadha al maqsud wa huwa akbarul kabairi ala al itlaq mu ne lépp loo xamante ni dafa juuyoo ak lii yàlla jublu ci bind gim ñu bind loolu li juuyoog loolu mooy akbarul kabair mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi ala itlaq si boyal boo bëggee xam bàkkaar bi gën a rëy si bàkkaar yi rek nanga xam ne mooy al ishraaku billah comme ni ko benn saxaaba laaje woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ban bàkkaar moo gën a rëy si bàkkaar yi mu ne ko al ishraaku billah bokkaale yàlla mu teg sa wa uququl walidayni nga dëngee sa ñaari way waajur nga bañ leen jox seen xaq ndax suñu borom taala dinañ ko gis ci kitaabu tawxid buñ ko buñ koy jàng ci aay euh, cheikh bi di indi da gis ne suñu borom saa bu nañ ko wéetal rek dafay teg ne say ñaari waajur nag na leen rafetal yàlla tere na leen bokkaale waaye tere na tamit ngeen ñaawal seen ñaari waajur moo tax yonente bi alayhi salaatu wa salaam bi ko saxaaba laajee ban bàkkaar moo gën a rëy si nga bokkaale yàlla mu ne ko summa ayyu ban moo stop si bàkkaar yi gën a rëy mu ne ko uquuqul waalidayni maanaam gëdd maanaam nga tongoo sa ñaari waajur nga juuyoog ñoom bañ a rafetal jëmale si ñoom mu ne wa xarama allahu aljannata ala kulli mushrik yàlla araamal na aljanam ci bépp képp kuy bokkaale loolu tamit am na aay yu bari yu wane ne suñu borom dafa araamal aljana si kuy bokkaale te kuy bokkaale kooku kenn mënu koo ràmm te bu duggee sawara dafay sax mu ne wa abaaxa damahu wa maalahu wa ahlahu li ahli tawxid mu ne kiy bokkaale yàlla dafa daganal dereetam ñu tuur ko kooku mën nañ tuur dereetam ndax ku bokkaale yàlla la wa maalahu alalam tamit mën nañu jël alalam bu geer amee mën nañ nangu alalam ki nga xamante ni dafay bokkaal yàlla di xeex jullit ñi di rey bakkanu jullit ñi kooku buñ te jekkoo bakkanam dañ koy rey bu jekkoo alalam mën nañ koo jël bu jekkoo njabootam te mën na leen jël te ay jaam wa ak njabootam pour ñan li ahli tawxid ñeel ñu ànd ak tawxid mu ne wa an yettaxiduhum abidan mën na leen jàpp def leen ay jaam lahum ñeel leen ñoom ñu am tawxid lima taraku alqiyaama bi ubudiyatihi lan moo tax ñi wéetal yàlla am droit jëm si ñi bokkaale bu ñuy xeexaw ñoom jàpp leen def leen jaam mooy ñoom dañoo nanguwul jaamu ki ki yeyoo jaamu kon ñi ñi nga xamante ni ñoom ñoo wéetal yàlla nangoo jaamu ak kin war a jaamu ñooñu am nañ droit jaamloo ñi nga xam ne nanguwul jaamu yàlla kon ku nanguwul jaamu yàlla kon ñi ñi jaamu yàlla man nañ la def ay jaam da ngay dégg jamono yi ñu ne jaam jeex na ñu ne jaam bu jeexee jihaad xanaa moo jeex kon waaye jihaad moom feeg mi ngi amoon jaam mënul ñàkk ndax jihaad mooy waral jaam am ndax liy tax jaam am mooy ku wéetalul yàlla muy xeexa yow nga jàpp ko man nga mën nga koo def jaam loolu dagal na sharia mu ne wa an yattaxiduhum mën nañ leen jàpp abidan def leen ay jaam lahum ñeel leen li ma taraku ngir bàyyi gën bàyyi alqiyaama taxawe bi ubudiyati ci jaamu yàlla ku jaamul yàlla jaamu leneen wa aballahu an yaqbala li mushrikin amalan yàlla dafa bañ ne du nangul kuy bokkaale yàlla benn jëf yàlla kuy bokkaale dootu la nangul benn jëf ndax mu yonente la jëkka wax ne leen ñoom buñ bokkaale woon danaa yàq seen jëf jin jëf yëpp mu adressé yonente bi salaam directement ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin yow yonente bi alayhi salatu wasalaam boo bokkaalee tuuti rek la yaxbatanna amaluk sa jëf dana yàqu te ko ëpp ko jëf kenn ëpp ko martaba sa yàlla ak daraja te yàlla nee na ko la in ashrakta soo bokkaalee la yaxbatanna dana yàqu amalu ko sa jëf te bu yàqoo wala takunanna da nga mujj nekk min alxaasirina si ñi perte kon balillaaha yàlla kefe faabud na nga ko jaamu wakun min ashakir nga bokk si ñuy bokk si ñuy sant kon loolu la yàlla wax yonente bi alayhi salaatu kon gannaaw loolu la wax yonente bi nag kenn génnu si mu ne yàlla bañ na tamit aw yaqbala fihi shafaatan yàlla du nangu ñuy ramb kuy bokkaale yàlla koo xam dafa deewaale bokkaale yàlla du la nangul ku lay rambu même yonente bi sax mënu laa rambu ndax dégg nga munaafiqoon yële nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa leen doon ñaanal daf di leen jéggalul yàlla daf ko ne sawaun astaghfartu lahum am lam tastaghfir lahum moo xam jéggal nga leen ñëw nga ñaan njëggal pour yàlla jéggal leen wala ñaanoo leen jéggal falan yaxfirallahu lahum yàlla du leen mës a jéggal munaafiqoon yi ndax ñoom tamit dañoo safaanoo ak tawxid ñoom dañoo am shirk moo tax te it yo alay yonente bi alayhi salaatu wasalaam am abu hurayra mas na koo laaj ne ko kan moo gën a yell si yow ëllëg nga ramm ko yonente bi ne ko man day foogoon naa ne kenn du ma laaj laaj bi lu dul yow yow abu hurayra ndax xër gi abu hurayra xëroon ci xaq pour ma mën koo ràmm ki ëpp chance pour ma pour ma ràmm ko yomal xiyam mooy ko wax laa ilaha illa allah muxlisan min qalbihi maanaam koo xamante ni wax na baatu dëgg bi muy laa ilaha illa allah te jamono jam koy wax muxlisan dafa sellal min qalbihi kon daf koo gëm surutu laa ilaha illa yëpp mat mu daat mu daat koy wax yow yonente bi alayhi salatu salaam nee na kooku moom la moo am xaq pour ma ràmm ko waaleykum salaam wa rahmatullah loolu li nga ciy déggee mooy ki nga xamante ni wax na laa maanaam deewul ci la ilaha illah amul tawhid koku amul yonente alai salaam du ko ramu da ngay gis nak nit di bëgg ko ramu fa rek manam day wax ne diw momay ramu mais mom bam ne diw momay rammu rek foofu la yaqé baatu la ilaha foofu la génne bopam ci am droit ñu ramu ko kon pour ñu ramu la tawhid ngay deewaale motax mu ne aw yaqbala aw yuqbala fihi shafaatan yàlla du ko nangul ak ramu aw yujib lahu fil akhirah da'wa ken du ko nangul yowmal xiyaam tamit ak ñaan waa ji nga xamante ni dafa deewaale bokkaale yowmal xayaam mënul ñaan ban nangu ko ñaan kenn du ko mën a rambu te ñaane kenn du ko faale ndax gis nga waa sa war a benn demee ba sonn sax da naan yàlla rey nga nu ñaari yoon dundal nga nu ñaari yoon est ce que mën nañoo delluwaat àdduna mën nañoo delluwaat àdduna pour mën a jëfaat est ce que beneen ñetteelu dund am pour ju ñëwee mën a rattraper lu ñu deboon suñu borom subhanahu wa taala am na foofu dafay dem ba jëppe leen sax ne leen ixsa'u fiha wala tukallimuun nuur leen si biir sa war bu leen wax ak man mel ni ku leen jëppi ñu ne fa innal mushrik ajhalul jaahil na billah ki bokkaale yàlla moo gën a réere yàlla kuy jaahil rek kiy bokkaale yàlla moo la gën a nekk jaahil ku réere yàlla rek ki bokkaale moo la gën a réere xaytu jaala lahu min xalqihi niddan ndaxte moom moo jël yàlla wuutal ko morom ci mbindeefam yi yàlla bind la bind ñeneen nga jël ñoom ñooñu yàlla bind leen nga def leen moroomu yàlla ñu ne kooku moo gën a réer xàqu yàlla wa dalika lii gaayatul jahli bihi fa réer yem fa réer yam fa la tàmbalee moom kiy bokkaale ndax moo réere xàqu yàlla kama annahu gaayatu zulmi mu ne tamit foofu la tooñaange yem boo gis koy tooñ dëgg ba gis ko xamal ne bokkaalekat bi moo gën a mën a tooñ wa in kaana al mushriku fi l waaqi lam yazlim rabbahu même sax bu fekkente ne sa dëgg-dëgg kiy bokkaale moom tooñul yàlla kiy bokkaale sa dëgg-dëgg tooñul yàlla wa innama zalama nafsuhu waaye yëgal ne boppam la tooñ kiy bokkaale dëgg moom tooñul yàlla ndaxte bokkaal gi muy bokkaal yàlla loolu du wàññi dara yàlla waaye boppam la koy wàññi moo tax nga suñu suñu borom subhaanahu bi mu wax alxuraan ne ñooñu day jég maanaam dinaa leen alak alak naa dinaa wàcc si ñoom alkaange dane wa maa zalamuuna walakin anfusahum kaanu yazlimuun ñooñu day ma yàlla ndax mënuñu maa wàññi dara waaye walakin ñoom anfusahum seen bopp kaanu yazlimuun lan doon na si xadis suñu borom subhaanahu wa doomu aadama na ngeen xam ne day bu ngeen nekkoon yéen ñëpp ci xolu ki gën a ragal yàlla yéen ñëpp ngeen am xol ki gën a ragal yàlla law anna awwalakum wa axirakum ki ji jëkk a juddu si yéen ba ki mujj a juddu si yéen nekkoon kaanu ala atqa qalbi rajulin nekkoon nañ ci xol ki gën a ragal yàlla ñoom ñëpp ñu am fa njoboxtal ragal yàlla yem ñu taxaw si benn place ñoom ñëpp ku nekk ñaan ma benn soxla ma may ku nekk soxlaam te bokkuñu ay soxla loolu du wàññi si sama nguur dara mi ngi mel ni rek nga demoon ci gi jël puso dugal ko ci géej gi génne puso bi lay lay lay toq loolu nga xam ne mooy taq ci puso bi moo tolloog li leen yàlla di jox la des sa géej ga nag mooy lu yàlla yor kon nga xam ne dara jógu si benn borom xam mu ne boo jëloon puso dugal ko ci géej boo génnee puso bi du tax dara pourtant boo jëloon weñ feer wala bant lu manti doon boo ko jëloon boo ko dugalee ci géej boo génnee dina toq waaye bu dee puso la nag boo génnee du toq du toq sax dara loolu ma lay wan ne suñu borom saala li muy joxe wàññiwu ko dara mu ne tamit yéen bu ki jëkk juddu si yéen ba ki mujj juddu si yéen su nekkoon ala afjari qalbi rajulin nekk waa ji gën a kàccoor ñoom ñëpp ñu am xolu ki gën a kàccoor fi nit ñuy kàccoor li ma mooy yàlla ñoo ñëpp day nan xam ne du ma wàññi dara sama nguur du wàññi sama nguur dara yàlla moom jaamu gi ñu koy jaamu yokk ko ñàkk jaamu gi wàññiwu ko dara kon loolu moo nekkoon leeral bi euh, al imam ibnul qayyim rahimahullah leeraloon ci wax gi mu wax ahamiyatu tawxid important bi tawxid am ak contraire am muy shirk legui cheikh bi mu dugg ci terre bi mu ne bismillahi rahmaani rahim mu ne mom mi ngi tambalé ci turu yàlla terreum yep ñu ngi tambalé ci turu yàlla comme ni ñu ko li ñu ko leeral woon yonente sallallahu alayhi wasallam wax ben hadith mu ne depp mbir bo xamanteni amna solo te bin ci dugg dugg ci turu yàlla mbir momu du am barke mu ne kitabut tawhid wa qawlullahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu ne wax bi sun borom subhanahu wa taala wax ci la tijé terreum bi mu nekk suratu zariyat suñ borom mu ne binduma jinne ak nit lu dul ñu jaaw ma ñu ne woon lu ñu jaamu lu mu jublu mooy ñu wéetal ko ndax jaamu gi sa àndul ak wéetal yàlla du tudd jaamu mu ne wa qawluhu wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taaxut mu ne wa laqad baasna sa dëgg-dëgg day maa yónni woon fii kulli umma xeet bu nekk yónni woon naa fa rasulan ab ndaw lan moo nekkoon seen mission mooy an ibudu llaha yéen ñëpp na ngeen wax yéen yonenti bu ngeen deme ne obudullaha jaamu len yàlla waccani mu taaxut te ndiko taaxut lépp lu ñuy jaamu te du yàlla rek na ngeen ko ndiko mu ne waxawlu ak wax gi mu wax wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan mu ne wa qada dogal na farataal na waral na rabbuka sa borom lan la faratal alla ta'budu ngeen baña jaamu fi illa iyyah kudul mom yàlla lu daf koo farataal dafa faratal suufam si ñu bañ fee jaamu kudul mom waaye mu ne wabil walidayni dénk naa leen seen ñaari wayjur ihsaanan ngeen rafetal nga gis ni suñu borom dafa ataf jaamoom ak rafetal ñaari ñaari wayjur suñu borom subhanahu wa taala ñaari wayjur la la booleel kon gannaaw boo jaamoo yàlla da ngay rafetal say ñaari wayjur nga gis ne fii dañuy rafetal say ñaari wayjur ñu bari la dañ koy tekkee topp sa ñaari wayjur mais tekkiwul loolu ndax bu fekkente ne dafa tekki topp sa ñaari wayjur kon day mel lépp lu la sa ñaari wayjur wax rek da nga koy topp taamut laxa te ihsan la wax rafetal rafetal nak moy nga topalen ci li nga xamanteni mo defok li yàlla santane ndax té dafa jëk wax ne bul jaam ku dul yàlla ndax ñom buñ la santé lo xam dafa juyo ak santane yàlla nga topalen ci dafa melni ñom ngay jaam ndax dafa juyo ak santane yàlla subhanahu wa taala mu ne waqawluhu ak waxam mom borom bi wa la tushriku bihi shay'an waabudullaha na ngeen jaamu yàlla ndigal la te dañ ne al amru ndigal bu jógee ci yàlla li ci top moy al ayn wa ras maanaam dégg topp sami'na wa ata'na dégg nañ topp yàlla nag dafa digle ne wa'budu jaamu leen yéen ñëpp allaha yàlla wala tushriku bu leen bokkaale bihi ci yàlla sayan dara bu leen bokkaale yàlla dara laa malakun muqarrab wala nabiyun mursal comme ni mu ko jàngal usul salaasa bul bokkaale yàlla dara ndax da ngay gëm ne cër yi yàlla am ci yow kenn amu kenn mënul jaamu yàlla ba jege yàlla ba tax mu am ci cëri yàlla yi loolu man mën amul kenn tamit mënul àgg ñaan ndigal wala mel ni da ko day diisoo ak moom ci li muy doxal ci kaw suuf ndax am na ñu am pas-pas boobu am na ñu am dañoo gëm ne nit ki mën na ay tur di woo ay tur tu woo ay tur ba àgg ci yàlla léegi bu àggee ci yàlla nag yàlla moom day daanaka yàlla nekk yàlla ndax yàlla day bokk moom nguur gi am na ñu gëm pas boobu ñu tudde ko ñoom ñoo xam dañu ko tudde alxulul maanaam wàcc wàcc mel ni yàlla day jëm jëmam gi wàcce ko si nit ki muy alxulul wala ñoom ñu tudde ko alfana jeex maanaam dem ba jeex tàkk si yàlla am ñom passage bob lool boobu amut nit ki mënul jeex tak ci yàlla ndax ci ciur yàlla kenn mënu ko am lool lépp ci lim leen yóbbu moy waxdatul wujud manam ñom ñëpp ñu jàpp ne ñëpp ben lañ te loolu amul parce que suñu borom subhanahu wa taala bu fekkonte ne lool amna dana ko leral ci alxuraan bi te dafa safa no sax sax ak passage pas bu leer té lool bu fekkonte ne dana am tan mo koy doon moy ar rasul sallallahu alayhi wa sallam te amu ko abdan la ila même bëgg suñu borom subhanahu wa taala di yéegal di ko yëkkati mu jëm yomal al isra wal bi mu koy yéegal pour mu dem asamaan lan la wax subhaana asra bi abdihi boobu la yàlla gën a reconnaître ne ab jaam la nit ki kañ lay am euh, kañ lay am garaat dëgg fi yàlla mooy bu yàlla reconnaître ne kii abdal abd la yàlla bu reconnaître ne yow sab jaam ab jaam nga rek kooku am nga garaat nga gis place yu bari suñu borom buy tudd yonente bi sax ba baatum abd lay tudd ndax bi muy wax maa wàcc si sama jaam bi téere bi xam nga wàcce ci ci nit téere yàlla wàcce ci ab jaamam téere lu am solo la mu ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi cib jaamam alkitaaba téere yàlla moo wàcce cib jaamam téere mu ne wa annahu lamma qaama abdullah yaduuhu kaadu yakunuuna alayhi libadan sama jaam bii mi ngi taxaw di jaamu yàlla ngeen koy sonnal ab jaamam la ko tuddee kon yonente bi yàlla abdu la ko tuddee jaamu bu fekk am na beneen tur bu gën a kawee abdu kon mu wax ko amul benn tur bu gën a kawee abdu muy Isa mi ngeen jël def ko doomu yàlla du doomu yàlla Maryam du soxna loolu sax ëpp na ñun mënuñ koy wax xamul ñu koy tuddee waaye daal yàlla nee na lam yattaxi saaxibatan wala wallan yàlla amul ku muy àndal ku jigéen amul doom mu ne ba ngeen ko ba ngeen waxee yéen waa wax bi ba ngeen ne yàlla am na doom wa qaalu taxada rahmaanu waladan ngeen ne yàlla am na doom yàlla mu ne laqad jitum sa en iddan indi ngeen aw fen wu rëy loo xam ne kenn mësu koo wax mu ne yéen ba ngeen ko waxe asamaan su ak montagne tutu ñu xar takadu takaadu samawaat yatafattar na minhu asamaan si xar xaw nañ di xar watan saqul ardu suuf tutu mu xotte ko wata khirrul jibalu montagne tutu ñu rot an daaw lirrahmaani wala ngeen wote wona yàlla amna dom wama yanbaghi maa yanbagi yellul lirrahmaani yàlla an yattakhir wala muy jappu dom mun leen li ma leen yëgal mooy in kullu man fis samawati wal ard kep ku nek si yi ak suuf si nekul lulul illa ati rahman abdan bis buy ñëwal yàlla abdu lay ñëw si garaatu jaam lay ñëw laqad ahsaahum yàlla natt na leen xam na ñaat lañ toll kenn du manqué wa addahum lim na leen addan ab lim kon ñëpp ay jaam lañ ñëpp ay jaamu yàlla lañ amul kenn koo xam ne suñu borom dana wàcc jëmam yi si moom muy am sifat min sifatillah wala muy am melokaan si melokaan yàlla wala muy dem ba am fanaa di jeex si yàlla amul yàlla tamit du sàkku kenn digal ci pour li muy doxal ci kaw suuf si du sàkku kenn amul kenn tamit koo xamante ni dana fi toog ba bëgg fee jógee ne yàlla di sàkku yàlla nan dama fee bëgg a jógee wala yàlla yónni ci yow malaakal mawta nga naan kon na yokk sama fan amul suñu borom subhanahu wa taala nee na illaa ajal musamman képp rek ku mënti doon ci nit ñi am nga ajal ab lim musamman bu ñu tudd boo xam ne bu àggee moom laa yastaxiruna saatan duñ ko yeexal wala yastaqdimuun te kenn du ko avancé tamit heure bi yàlla ne moom lay jël sa bakkan moom da lay jël nit nit ñu bay balen di tagu ndax programme na lépp te ci programme lay dox ndax te kulla yawmin huwa fi sha'an yàlla mom bis bu nek mi ci ap programme am mom lay doxal motax mu ne wa'budullaha jamulen yàlla wala tushriku bihi te bu ngeen ko bokkaaleeg shay an dara dara mom bayiwul dara dara mom muy lépp bu len ko bokale ak dara mu ne waqawluhu ak wax gi mu wax قل تعالوا atlu ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا mu ne qul waxal yow yonente bi taalaw kaay leen at lu ma jàngal leen maa xarama ko li yàlla araamal aleykum si yéen ndaxte yahud dañoo jëloon seen i mbir araamal ko seen bopp te yàlla araamalu ko comme ay lekk façon façon lekk ni ñu araamal ko seen bopp te yàlla araamalu leen nit ñi danañ jékki jël benn mbir araamal ko seen bopp te yàlla araamalu ko yonente bi nag yàlla ne ko kaay ma jàngal la li nga xamante moom laa araamal si yéen mu ne bam bam si li nga xam moom laa araamal lim si jiitu lim si jëkk a wax mooy allah tushriku bihi shay'an bu leen ko bokkaale dara kon li yàlla jëkk a araamal mooy ashirku billah comme ni ko ibnul qayim leerale ci muqaddama bi ñu joxee sànq yàlla li mu jëkk araamal mooy ashirku billah mooy bokkaale suñu borom subhanahu wa taala mu ne qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum saar boobu boo ko jàngee muy sóoratul anam da nga gis ne mooy li nga xam moom la ñuy tudde alwasaaya al ashr maanaam dafa am fukki ndénkaane yoo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko dénk jaam yi mu ne pour ngeen jaar fi te loolu bi mu koy wax li mu jëkk wax mooy bokkaale laa leen tere suñu borom mu ne qul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum kaay leen ma jàngal leen yow yenente waxal kaay leen ma jàngal leen leen yàlla araamal alla tushriku bihi shay'an bu leen ko bokkaale dara mu teg ci ne wa bil walidayni ihsaanan say ñaari waajur na nga rafetal jëmale ci ñoom ñetteel bi mooy tax wala taqtulu awlaadakum min imlaaq bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk comme ni ko jaahiliya doon defee avant yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw ku si masaan am doom bu jigéen danga nga koy rey ndax da ngay ragal ñàkk da naan comme kii du ma du mën a liggéeyal te xare bu amee tamit du mën a défendre boppam kon day tax sama sët nekk jaam ndax buñ ko jàppee yóbbu ko mën na jur ay jaam kon loolu gàcce la may jural ñu ñu daal rey seen doom yu jigéen ilaa yow mi naa xaasa tamit am na ñoo xamante ni dañuy arrêté seen njur ngir ragal ñàkk ndax mënuma koo dundal comme ni mu amee si réew mi ñuy dund yu bari fi mu nekk nii si ñuy dund fii nga gis ñoo xamante ni bu ñu amee ñaar doom sax dañuy tiit arrêté seen ak njur ndax ragal lan ragal ñàkk yàlla nag ne tax taxtulu bu leen rey awlaadakum seen doom min imlaax ndax ragal ñàkk nahnu man yàlla narzuqukum maa leen di xéewalal yéen wa iyaahum ak ñoom doom yi tamit maa leen di xéewal maa yor seen wërsëg nahnu narzuqukum maa leen di wërsëgal wa iyaahum ak ñoom ñeenteelu moy wala taqrabul fawahisha bu len jege lu ñaaw muy njaaloo ma zahara minha wa ma batan la sa feñ ak la sa neub njaaloo bu feñe bu neub yëpp la yàlla tere ki nek fa lañ mo xam ab état ko jox carte muy def njaaloo bu feñ yàlla aramal nako ki kii nëbblu tamit yàlla aramal nako ko yëpp la yàlla aramal njaaloo bu fessel ak njaaloo bu neub yëpp la yàlla aramal juromel bi mu ne wala taqtulun nafs allati harrama allah illa bil haqq bu len ray bakkan lu dul ci dëgg bakkan boo xam ne yàlla dafa araam ko rey bu leen ko rey bu ngeen rey bakkan na nekk ci dëgg na nekk sharia moo tax ngeen rey ko mais du nekk ngir tooñ wala ngir leneen mu ne nag dalikum wasaakum bihi lii laa leen dënk dénk laallakum taaqiluun ndax ngeen am xel loolu mu ne la laallakum taaqiluun gii mu wax boo xam ne ñu ne pour ngeen am xel dane lii mu tere fii ku am xel rek war nga koo mën a nangu ah jor woon sax suñu borom sax di la ko tere war nga xam ne suñu borom moom kenn waroo koo bokkaale loolu ku am xel war na xam ne ki la bind ko booleeg lenn ñaari waajur yi nga xam ne ñoo sabablu sag ñëw ñoo sabablu sag ñëw fii àdduna tamit war nga xam ne da nga leen war a rafetal tamit war nga xam ne waroo ko rey ngir ragal ñàkk loolu xel rek waroon na ko xam xel tamit na xam ne njaaloo lu ñaaw la war nañ ko war nañ ko moytandiku xel tamit waroon xam ne bakkan bu deful dara waroo ko rey moo tax suñu borom ne zalikum wasaakum bihi lii laa leen dénk laallakum taaxiluun ngir ngeen mën a xelu juróom-benneelu mu ne wala taxarabu bu leen jege maalal yatiim alalu jirim illa billati hi ahsanu lul anam nga gën a rafet xataa yabluga ashuddahu ba keroog muy jot magam maanaam xale bi nga xamante ni waajo dafa génn àdduna ñu dénkal alal ji na nga garde alal ji denc ko denc bu rafet ba màgg nag nga delloo ko alalam mu ne wa awful kayla wal mizaan na ngeen matal peese yi ak nattukaay yi bil xis nag si bu ngeen di nattal nit ki di ko jaay na ngeen ko nattal natt bu mat bu ngeen di peese tamit na ngeen peese peese bu mat mu ne nag laa nu nukallifu nafsan illa wasaha du duma togg bakkan lu dul lam attan yàlla li nga man rek la la sant te li nga man xam na ko moo tax mu sant la ko wa ida qultum su ngeen di wax faadilu na ngeen maandu walaw kaana daa qurba doon tokka nag ab ku jege ñaale la bu fekk sa morom sa mbokkum jege ñaale bu fekkente ne dafa tooñ nga dem sa palaasu àttekaa bi ñu wax ñu wax la na nga wax maandu te na wax dëgg gi mu ne wa ida xutum su ngeen waxee faadilu na ngeen maanu walaw kaana daa xurba nag borom jege say mbokkum jege ñaale la mu ne wa bi ahdillahi awfu kóllëre yàlla bi na ngeen ko matal bu ngeen fasantee nit kóllëre yàlla seerele na ngeen ko matal waaye kóllëre gën a rëy nag mooy wax ban waxante noon suñu borom yàlla mu ne mu ne woon nu alastu bi rabbikum est ce que duma borom ñun ñëpp ñu ne balaa hakay kon ñun ñëpp ñoo seede woon fasante kóllëre ak yàlla ne danañ ko jaamu suñu wàcc si kaw suuf kon wa bi ahdillahi kóllëre yàlla googu awfu nañ ko matal mu ne zaalikum wasaakum bi lii laa leen dénk laxallakum tadakkaruun ngir ngeen mën a waaru ngir ngeen mën a fàttaliku bu mu mu daal di koy mu mujjeel bi nga xam ne daanaka moo ëpp solo mu ne wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uuh samaw yoon mi ngi nii lii ma jox haada nabiyu muhammad mooy samaw yoon sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ko topp wala suba la bu leen topp càllale yoon yi nga xam ne dañoo nekk ci wet gi ndijoor ak càmmoñ bu len ko topp fat ndax bu ngeen ko defé fa tafarraqa bikum an sabili la len di tàqale ci yoonu magwi zalikum wasaakum bihi li la len dénk laallakum tattaquun ndax ngeen am taqwa taqwa bi nga xamanteni ni am mom la yàlla dénk mom la la yàlla dik al janna yàlla nu yàlla defal mu tek ci ne qaala waxna na ibnu masud ibnu masud neena na radiallahu anhu man araada an yanzura ila wasiyati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عبد الله بن مسعود من كيف هو خمنتني بغنا خول سي لين كان يونتي دي موجا دين كاني فيغا خمنت دانا كوم لا تامبوني دا خمن لا ريكونيت دين كاني نكو من كوكو بغ فال يقرا كو بغ دين كان يونتي بي فال قوله تعالى واخ بي qul taalu atlu ma harama rabbukum alaykum mooy ñetti saar yi ñetti aay yi ñu jàng sànq nga xamante ni si la fukki ndénkaan yi nekk ibnu masud nee na li mooy nekkoon ndénkaan yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne wa an muaz ibni jabal jël nañ ci muaz ibni jabal radiallahu anhu qaal كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في صحيحين من معاذ ابن جبل من دما أننا نقي ينتمي عليه الصلاة والسلام سيمبام yonent bi war mbaam man ma nekk ci gannaawam ñun ñaar ñëpp ñu war mbaam mi yonent moo nekk ci kanam ma nekk ci gannaawam kuntu radifa nabi nekkoon naa ci gannaaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ala ximaar ci kaw mbaam fa qaala li yonent bi wax ma yaa Muaz yow Muaz mu woo Muaz Muaz wuyu ko mu ne ko est ka xam nga lan mooy xàqu yàlla ci jaam yi ak lan mooy xàqu jaam yi ci yàlla ban xàq moom la yàlla am jaam yi war ko koo defal ak ban xàq la jaam yi am yàlla war leen koo defal Muaz mu ne allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak af yonenteem day ñoo xam moo xam na ne yonente bi koy laaj pour jàngal ko yonente yonente bi nag ne ko xaqullah ala al ibad xaq bi yàlla am ci jaam yi an yaabuduuhu wala yushriku bi shay'an mooy ñu jaamu ko moom yàlla te bañ koo bokkaale dara xaq bi yàlla am ci ñun mooy ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale kenn bañ ko bokkaaleek dara wa xaq bi jaam yi am nag ci yàlla allah yuaddiba man la yushriku bihi shay'an mu baña mugal ko xamanteni bokale wuko yàlla mo warul bopam yàlla dara waruko mais lim warul bopam moko war mom mom moom neex mu warul ko bopam mune lim warul bopam nak moy kep ko xamanteni bokale wo yàlla yàlla dula mugal qultu muaz mune ya rasulallah afala ubashiruna ha ah téemaa bégal yon nit ñi kon kay bayal ma dem xibaar du neex bi ma bégal ci nit ñi ma wax len ko ma yëgal len ne kat kep ku gorlu fi ci kaw suuf si ba fexe ba bokkaale woo yàlla yàlla du la mbugal yonente bi ne ko laatu bashirum bu leen bégal fa yettakilu ndax kon dañuy sukkandiku si loolu rek naan gannaaw yàlla moom fekk bokkaale woo ko rek du la mbugal kon ñun nañ fexe buñ bokkaale yonente bi nag tere ko loolu loolu liñ ciy dégge mooy bu ko yonente bi bàyyi woon ba mu wax ko am na nit ñoo xamante ni dañ xaw sàggan dan naan léegi kon comme lool la léegi bakkaar yi amul problème te loolu bàkkaar ngay def nag mooy yoon bu lay dugal si bokkaale kon moytu moytu ni ko bàkkaar yi mooy tax nga mën a mucc si nga xam ne mooy bokkaale moo tax yéen tamit ne ko laa tubashirum bu leen bégal fa yattakilu ñu daal di wéeru si loolu kon lii mooy ayat yu tedd yi nga xamul la borom téere bi bind si muqaddima bi ak ñaari ahadis am solo yi mu ne nag wa fiihi masail maanaam am na ay masala lii ma la jàngal ci ayaat yi ak ahadis yi am na ay masala yoo xamante ni pour nga mën a dégg aaya yëpp da ngay takk masala yi mu ne al ula bu cëkk bi mooy al xikmatu fi xalqil jinni wal insi nga xam li tax yàlla bind jinne ak nit boo fexee ba xam li tax yàlla bind jinne ak nit rek yaa ngi ci yoon wi ndax suñu borom dane wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudun binduma jinne ak nit lu lu jaam kon al xikmatu xikma bi nekk ci bind gi yàlla bind jinne ak nit mooy ñu wéetal ko ko loolu nga ciy dégg mu ne astaanitu ñaareelu masala yi mooy ann al ibadata hiya tawxid nga dégg si ne jaamu yàlla mooy tawxid bu ne nee jaamu yàlla mooy wéetal yàlla li anal khusumata fihi ndax ndax te xolo bi ngay gis yëpp mu am diggante ñi gëm ak ñi gëmut tawxid la bu xex amé rek xare amé diggante bayna suhufil muminin wa suhufil mushrikin rek xamal ne tawhid motax ndax te mushrikuun ni comme niñ ko jàngoon fële ñom reconnaître non ni yàlla mo bind tawhid wubu ya moom gëmon nañ ko waye nangul won jaamu yàlla dañ da bokal yàlla motax xex am ci diggante lol motax ñu yëkëti jaa si jàkkaarloog ñoom mu ne nga xamne li anal khusumata khulubi fihi fii si la asaalisatu ñetteelu masala bi ñu ciy déggee mooy an la an man lam yati bihi lam yahbadillah ko indiwul tawhid jaamoo yàlla koo xam ne sa tawhid matul xamal sa jaamu yàlla matul am an man lam yati bihi ko andiwul tawhid lam yahbudillaha jaamul yàlla fa fiihi maana qawluhu wala antum aabiduuna ma abudu ci loolu ngay déggee wax bi suñu borom taala wax ci qul yaa ayyuhal kaafiruun mu ne wala antum déet yéen aabiduuna ngeen di jaamu ma abu li may jaamu kon yow da ngay set wicc si ñoom li ñuy jaamu ñoom tamit ñu set wicc si yow li ngay jaamu mu leer moo tax nga suñu maam Ibrahima tamit lool la waxoon aw nitam ak eh, ñam àndaloon gëm dañoo waxoon seen aw nit ne ñun dañ nañ ci yéen ak li ngeen di jaamu yépp kafar naa bi comme def nañ leen ay yéefar te wabadaa baynanaa wa baynakum al adawatu wal baxda abadan suñu diggante moom nooneel ak mbañeel moo ci mën a nekk abadan ba faw xatta tuminu billahi wahdahu ba kere ngeen di yàlla su ngeen wéetal yàlla nag ñu mën a ànd ak yéen waaye fekk yéen a ngi yàlla duñ mën a ànd yéen mu ne arraabihu ñeenteelu masala bi alxikmatu fi irsaali rusul bi ñu ci déggee tamit xikma bi tax yàlla yónni yonente yi ndax yoon yàlla moo ne damaa yónni yonente yëpp wax loo leen ubudullaha wajtanibu taaxut kon xikma bi yàlla yàlla yónni yonente yi mooy tawxid alxaamisatu muy mu ne juróomeelu masala bi mooy anna risalata ammat kulla umma maanaam risaala bi yàlla jox yonente bi alayhi salaatu salaam dafa matale bépp xeet wala bokk risala bi yàlla jox yonent yi matal bépp xeet ndax yàlla dane wala qad ba'athna fi kulli ummatin yónni ci xet bu nekk kon amul benn xet budul yàlla yónni yow ap yonente amul benn jamono dudul jamono ji amna ap ab yonente bu leen di jàngal seen diine mu ne ànd risaalata message bi amat matalena kulli ummatin xet yëpp amul benn xet bo xamanteni yàlla bayina la te joxal ap yonente ndax yàlla mo warlul ne dana yoni ay yonente pour ñu leeralal li ñi ci siratul mustaqim pour que ëllëg kenn du am am aw lay wooy lay sa kanamu borom ndax yàlla moo wax mu ne ma yoni rusulan mubashirin wa munzirin ma yoni ay yonent yo xam dañuy deggle di xuppe di deggal nit ñi ne li bu ngeen ci jaaree xewal ngeen ci am di len xuppe ne moytu len li nax bu ngeen ko toppee mbugal ngeen ci am rusulan mubashirin li alla yakuna ngir du am lin nasi ñel nit ñi ala allah ba'da rusul nit ñi dootuñ am lay ci kanamu yàlla gannaaw bi wacce yonent yi motax mu ne juromelu masala bi ciy degge moy anna risalata naka message bi amat matale na kulla ummatin xeet yëpp amul benn xeet lu dul am na ab yonente bu yàlla yónni ci yow pour mu jàngal la bu yonente bi xaatamu nabiyin wa imaamul mursalin jàllee teewul tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox xam-xam bi ñoom ñooy war a taxaw taxawaa yonente yi ndax yonente yonente bi moo wax ñu ne al ulama warasatul anbiya yone maanaam borom xam-xam bi ñoo doonu yonente yi te yonente la moo nekkoon seen liggéey mooy ad daawa ila tawxid kon ulama yi ñoom ci tawxid lañ war a woote ulama yi bu ñu wooteetul ci tawhid kon bàyyi nañ message yi nga xam ne maanaam bàyyi nañ mission yonente yi kon ñoom beneen mission lañ ci dox waaye doxatul mission yonente yi woote yëpp ci tawhid la war a sukkandiku avant dara bi am ndaxte jaamu yàlla yi ni woo nit ñi bu amul tawhid yàlla du ko nangu kon nañ woo nit ñi ci tawhid ba seen tawhid mat ñu doog a indi ay jaamu yàlla te loolu la dégg ci yonente alayhi salaatu ndax yónni nañ ko di diire bi ko yónni ñaar fukki at la ak ñett yi jëkk yëpp tawhid la doon woote ñu doog a wàccee yeneen jaamu yàlla yi mel ni azaka ak worok aj màkka yu yëpp wàcc ci mujjug jamono kon loolu tamit luy wane la ne tawxid moom il faut ñu ndaxte tabax tabax bi mënul taxaw sans fondation te tawxid mooy fondation bi ku bëggoon a taxawal ñëw rek bëgg a tabax sa tabax ñëw rek yëkkati sa miir te sa fondation def naa du taxaw kon jaamu yàlla pour mu taxaw nit ki nit ki pour ñu taxaw il faut ñu am tawxid mu ne li ñu ciy déggee ak saadisatu juróom benneel mooy na anna diinal anbiya waahid li ñu ciy déggee mooy diine yonente yëpp benn la yonente yëpp seen mooy al ndax yàlla islam la reconnaître te kon islam la joxe mu jàngal ci alxuraan mu ne islam mooy diine ji ma joxoon nuux moom laa joxoon tamit ibrahim mu ne wa man yarxabu an millati ibrahim illa man safiha nafsuhu kenn du bàyyi yoonu ibrahim lu dul ku ku réere boppam wala ku nar a boppam mu ne wala xaris tafay naaxu tànn naaxu ibrahim fi dunia ci àdduna wa innahu fil axira min asalihin id qaalahu rabbu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin mu ne ibrahim maa tànn fii si àdduna alaxira jamono jamaka ne man maa taxaw ibrahim ne ko aslim jébbalul ibrahim ne aslamtu li rabbil alamin jébbalu naa ngeel ñeel kii nga xam ne mooy ak borom mbindeef mooy kon boo ne aslamtu mooy man dugg naa ci lislaam kon ibrahim islam la yoroon ci la dénkoon njabootam yaaqub mi sëtu ibrahim tamit ci la yoroon ay njabootam Moussa loolu la yoroon Souleymane yoroon ñëpp moom la ñu yoroon ba Muhammad moom la yor kon islam mooy di moo nekkoon diina yonent yi mu ne juróom-ñaareel bi mooy al masalatul kabira masala di gën a rëy ci masala yi mooy nga xam ne anna ibadat laa tuxsal illa bil kufri bi taaxut mu ne mënoo am jaamu yàlla dëgg lu dul nga weddi taaxut jaamu yàlla du mat lu dul nga weddi taaxut mënoo di jaamu yàlla pare di reconnaître taaxut yi tamit mënul nekk jaamu yàlla du mat lu dul nga weddi taaxut mu ne fa fiihi maana qawli fa man yakfur bi taaxut ci ngay déggee wax bi mu wax ne fa man yakfur bi taaxut wa yumin billah képp ku jëkk a weddi taaxut doo gëm yàlla kat kooku faqad istamsaka bil urwati bil urwati lwusqa kooku moo mooy ci bum bu dëgër bi nga xamante ni lan fi saamalaha du farañteku du dagg mukk mu ne asaaminatu juróom-ñetteel bi nga xam ne anna taaxuuta aamun fi kulli ma xubida min dunillah buñ lay wax taaxut nga xam ne taaxut nag dafa général muy lépp lu ñu jaamu lul yàlla taaxut la comme ni ñu ko jànge woon ne taaxut yi bari nañ waaye seen bopp yi ñu nekk ci kaw juróom lañ ki si jëkk muy iblis iblis ñu taxawoon ci kanamu yàlla ne dinaa réeral sa jaam yi ñu si bari naa leen réeral ba yàlla kooku taaxut la képp ku ñuy jaamu tamit nga gërëm jaamu gi taaxut la képp ko xam yaa ngi woo nit ñi pour lu jaamu la tamit taaxut nga comme ni na meloon kooku taaxut la mu ne ana taaxuta ndaka taaxut amun dafa matale fii kulli maa ubida si lépp lu ñuy jaamu min dunillah si yàlla kuy woote woo ilmal xayba tamit di woote ne yow xam nga xayb xam nga lu fàddu xam nga lu ñëwagut kooku taa taaxut la comme ni ñëw ñëbaatkat yi di def ak gisaanikat yi ndax ñoom ñoo ne dañuy woote li nga xam ne mooy alxayb te yàlla rek moo xam xayb ndax yàlla moo wax qul laa yaxlamu man fi samawati wal ardi al xayba illa allah qul waxal laa yaxlamu xamul man fi samawat képp ku nekk ci asamaan wal ardi ñi nekk ci asamaan ak suuf xamuñu al xayba kumpa ku ko xam kan la illa allah mooy yàlla kese yonente bi ne képp koo xam ne dem nga ci ab gisaane wala am njibarkat nga laaj ko mu wax la nga dëggal ko boo dëggalee rek wedde nga alxuraan kon kon waaja moom anamu moom yow ki ngay laaj mu wax la nga dëggal yow mi dëggal weede nga alxuraan moom ma la wax nag kon fu mu nekk kooku moom génn wu yàgg bokkut kooku taaxut la attaacaatu juróom-ñeenteel bi mooy mooy nga xam azamu sha'ni salaati ayaati al muhkamaat fi surati al an'am inda salaf mooy nga xam rëy gi ñetti aay yi nekk suuratu an'am mooy ñetti aay yi ñu jàng ci seen al wasaaya al asr nekk mooy fukki ndénkaane yooyu yàlla ndénkaane te moom ko dénkaane sa fin bi dane zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun yi loolu la leen yàlla de pour ngeen am taqwa ngeen xam rëy gi mu rëyoon ci salaf yi salaf yi ñoom aayoo dañ koo déggoon xam ko moo nekkoon gis comme commandement yi nga xamante ni moom la suñu borom subhanahu wa taala teg ci suratul an'am te ku nekk war koo xam jim see maanaam doxal sa dund mu ne ci azam sha'ni salas al ayat al fi suratul an'am inda salaf nga xam rëy gi nga xamante ni ñetti aay yooyu nekk suratul an'am rëy nañ ko ci salafu saalih yi mu ne nga xam ne wa fiiha nekk na ci ñetti aay ashru masail masala fukki ndénkaane aw laahaa bi ci jëkk an nahyu ani shirk yàlla dafa laa jëkk tere bokkaale al ashira fukkeel bi fukkeel masala bi mu ne al ayat al muhkamat fi surati al isra nga xam aay yi nga xamante ni ay aaya muhkamaat lañ aay yu leer naññ di àtte nekk si suratul isra mu ne tamit nga jim ko xam nga xam ne nag wa fiha masala am na fukki masala ak juróom-ñett ci sootu isra boob nga xam ne suñu borom subhanahu bi mu lay limal fukki mbir ak juróom-ñett di la ko dénk wala mu lay tere wala mu lay digal lim si jëkk a wax mooy wala tajal maa allahi ilahan axar fa taquda mazmuman daf doon dénkaane juróom fukki mbir ak juróom-ñett ci lim ko tàmbalee mooy wala tajal ma allah bul def ànd ak yàlla ilahan axar beneen yàlla yàlla bu ko wutal beneen yàlla ndax boo ko defee fa taxuda da ngay toog mazmoon di kun ŋàññ koo xam ne da ngay am kun ŋàññ ngay doon max wén ko perte da ngay perte ndax fekkee dangay ngay jaamu yàlla di ci bo jaam di ci bokkaale sa jaam li ñu doon séntu doo ko am kon da ngay perte te boo perte danga mujj nekk mazmum nga nga mujj ŋàññ sax sa bopp mu ne loolu mi ngi ko tijjee wala tajal maa lax ilahan axara mu tere la bokkaale bi mu la teree tere tamit sa ba mu koy tamit li mu ko tëjee mooy wala tajal maa allahi ilahan axar فتلقى fi جهنم maluman madhuran من ngi ko tijjee tere nga bokale way min ko tëjee tammi tere la nga bokale ndax dane wala tajal ma allah ilahan axara bul defal yàlla benen yàlla ndax boko ko fatul qa dañ lay sànni fi jahannama fi jahannama boko defee maluman ngay ku yedd mad kun yedd ku yedd sa mad madhuran ngay ku perte ko xamne ne min rahmatillah dañ lay soril yermane yàlla ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله من سن بروم داف ньо yé ci ter ci reyaayu yile masala yi mu wax ci suratul isra nga xam daf koo tijjee tere la nga jaamu keneen ku dul yàlla ndax day tax nga nekk ku ŋàññ mu tëje ko tamit tere la nga jaamu keneen ku dul yàlla ndax day tax ñu sànni la sawara nga sor yermane yàlla lim ko tëjee nak moy zalika mimma awha ilayka rabbuka min alhikma diko yàlla wacce par li nak la la wax yow yonent bi ci hikma muy xam-xam buy jani mun ne alxaariyatu achara fukkeel bi ak ben moy ayatu suratu nisa allati tusamma alxuquq al achara wax bi la wax ci suratu nisa mun la wabudullaha wala tushriku bi shay'an mu ne foofu dafa nekk aay yi nga xamante ni moom lañ tuddee al xuquq al asra fukki droit yi maanaam ñu am si yow droit ndax suñu borom day wabudullah wala tusrik bi shay'an wa bil walidain ihsanan na nga rafetal sa ñaari waajur mu teg ci wa bidul qurba wal yataama wal masakin wal jaar dul qurba wal jaari dul junubi wa saahibil janbi wabni sabil wa wa ma malakat aymanukum fukki yooyu nga xamante ni ñoo si yow droit mais da ko war a xam waaye nag bi mu lay wax nit ñu am si yow droit muy sa ñaari waajur ak say jege ñaane ak yatiim yi ak misikiin yi ak ki nga xam ne yéen a dëkk mu nekk julit ak ki ngeen dëkk te nekkul julit wala ki nga àndal nekk ci yoon kooku tamit àq dafa am àq si yow comme ñaa ngi tukki mu am ku bokk oto kooku dafa am dafa am àq si yow mooy wa saaxib bil janbi mooy ki àndak ak yow nekk sa côté wala nga nekk sa avion ki den ak yow tamit sa mbokk la kooku dafa am àq si yow waroo ko lor suñu borom bi ñuy wax loolu ak wamaa malakat aymanukum ak jaam yi nga xam ñoo nekk seen seen suuf ñoom tamit dañu am àq si yow bi mu lay wax àq yi nit ñu am si yow yëpp li mu ci jëkk mooy moom àqam la jëkk a tudd mooy waabudullaha a ngeen jaamu yàlla wala tushriku bi ann te bu leen ko bokkaale dara kon yàlla xaqam la ñu war a jëkk a joxe matal ko ba pare doo ko mën a matal xaqu nit ñi ndaxte ci matal xaqam diggante ak yàlla comme moo mën a matal xaqam diggante ak nit ñi ndaxte ki matalul diggante ma borom subhanahu wa mënul matal diggante ak nit ñi ndaxte boo gisee suñ dund gi xaw a jafe maanaam koo séqal yenn saa yi ñi si bari si nit ñi du ñëpp waaye ñi ci bari ñu wor la da ngay séentu nit ak mbaax nit day ñëw présenté wu kanam gu baax yaa ngi ko gis ci jàkka ji muy julli mi ngi woor julli nga ko jàppee waaye bu ngeen séqee dara mu wor la loolu li ko war a mooy aqida pas-pas moo baaxul digganteem ak borom moo baaxul moo tax suñu boroom subhanahu wa taala bi bi jàngal yonente bi daf ko ne na nga taw tawxid ba pare maanaam diggante yàlla diggante nit ñi ak borom bi na sell na set léegi nag diggante nit ñi mën a set ndax yonente bi dafa ne damaa ñëw pour defar jikko yi day ñëwul rek ne leen ne de leen maandu seen diggante de leen tabe loolu ay jikko yu baax la de leen dëggu waaye dafa ñëw rek ne leen xuulu laa ilaha illallah taflahu wax leen laa ilaha la ngeen mën a texe ki wax laa ilaha illallah xam laa ilaha la lay tekki ba wax ko ba dund ko kooku moo mën a rafetal diggante wi nit ñi pour am man a am texe ndax ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon man ñi ki ki nga xam ne moom la yàlla yónni woon mu yonente bi ci nit ñam ñam ñam woon ñoom ay arab lañu woon beneen yonente wax leen laa ilaha illallah taflahu am na si ñoom ñoo xam ne xam nañ baat bi lay tekki moo tax ñu bañoon koo wax ndax xam nañ ne bu nee laa ilaha illallah fi ñuy jëkk tàmbalee mooy xërëm yi nekk seen kër yi la ñuy dindi xërëm yi ñu samp ci kaawe gi moom la ñuy jëkk dindi moo tax ñu bañoon ne duñu wax laa ilaha illallah ndax xam nañ bu ñu waxee laa ilaha illallah ñoom ak seen jaam yi ñooy tolloo droit léegi ndax yonente bi dafa ñëw ne annaasu a yem comme ni bañu peñe yemee peñe gi ngay peñee sa karaw ni ñu tolloowee noonu nit ñëpp tolloowee te ñoom abu jahl ñoom al aas ñu kàngami màkk yooyu nga xamante ni dañoo bañoon wax laa ilaaha illallaah ñoom dañu amoon ay jaam xam nañ ne bu nu waxee laa ilaaha ñoo kenn seen jaam yi ñooy tolloo ñoo bokk droit moo tax mënuñ mënuñ ko woon wax moo tax ba yonent bi ñëwee ne wax ne laa ilaaha illallaah ñu ne ajaala al aalihat ilaahan waahidan waaye yi dafa ñëw fekk ñu am suñu xërëm yu bari ñetti téeméer téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk te at mi boo ko limee at mi ñetti téeméer la ak juróom-benn fukki fan 360 jours la année bi am waxuma année solaire bi année lunaire mom 360 jours la ñom ñu am 360 xorom melni bis bu nekk amna xana xërëm mun ciy jaamu ànd ak lolu seen problème fajuwut wul leena yéen itam ñëw leen nag benn yàlla kessé fi am ñom nak ñu ne ñun suñu problème wul chaque jour am yàlla bun bun am suñu problème fajuwut wul waji ñu ben yàlla kessé xana kon fun jëm a al aliat ilahan wahid moom dafa jël yàlla yu bari yeb tek kenn ni ilahan wahid ben yàlla kessé inna hadha la shay'un ujaab li mbir mu yeme la legi nak kàngam yi di wër ci dëkk yi dëkk dëkkani naan leen bu leen déglu kii wantalaqa al malau minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hada la shay'un yuraab wantalaqa al mala kàngam yu wéy nañ di dem di joxe ndigal naan dañuy joxe ndigal animsu wéy dox leen te wéy wasbiru te muñ ala alihatikum seen yàlla yi muñ leen dana mas a baax baaxagul waaye dana mas a baax waa ji ñëw fi moo bëgg indi problème ala alihatikum inna hada lii la shay'un yuraab mooy suñu ndigal bi ñu joxe kon ñoom ñu ngi joxe ay ndigal naan mooy leen ci suñ xërëm yi ndaxte dana mas a baax te du mas a baax kon la ilaha illallah xam sens bi dafa am solo ci nit ki mom la wara jëk xam xam lan la saako fi yow nak nga do ko def waye malheureusement ñun suñu société da ngay ko xam day wax la ilaha illallah pare lam tay tek moy lu safaanu ak la ilaha illallah kon ko amul la ilaha lay sàkk manam lan la lan lay tekki sax xamuko ak lan la bëgg ci lan la sàkku ci mom ndax suñu borom daf la diko wax ne la fa'lam annahu la ilaha illallah na nga xam la ilaha illallah da nga ko wara xam yonente bi ne kep ko xamante de nga man maata foo ya'lam annahu la ilaha illallah daxalal janna képp koo xamante ne génn nga àdduna te jamono da ngay génn àdduna yaalam yaa ngi xam baatub laa ilaha illa xam nga ko xam ngi est ce que xam rek la mooy nga xam sens bi pare nekkoon ci saxaw si ndax di nga dégg feneen mu ne man maata waxuwa man maata mu ba ba ka saxaaba laajee abu hurayra ne ko kan moo gën a yell si yow nga ramb ko da ne man xaa laa ilaha illa muxlisan maanaam ku wax laa ilaha pare sellal kon ixlaas sartu la si sartu laa ilaha illa mu ne asaniyatu asar fukki masala bi ak ñaar bi ñu war a xam mooy at tanbihu ala wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi nga xam ndénkaane gi yonente bi sallam dénkaane ba muy faatu moom la ibnu masud wax ne képp koo xam ne ba nga xam dénkaane yonente bi dénkaane ba muy faatu na nga jàng ñetti aay yi nekk sootul na xam mu tijjee ko qul taalu atlu ma xarama rabbukum aleykum jëkk tere bokkaale doog si teg lañ siy teg ma ne loolu tamit war nañ ko xam mu ne as saalisatu maarifatu xaqillahi alayna nga xam xaq bi yàlla am si ñun comme ni ko yonente bi alayhi salaam la jàngalee laaj Muaz ibnu Jabal nekk est ce xam nga lan mooy xaqu yàlla si jaam ak xaqu jaam ci si yàlla Muaz ibnu Jabal ne ko yàlla ko yonente moo ko xam mu ne ko xaq bi yàlla am si ñun day an yaabuduhu wala yushriku bi shay'an ñu jaamu ko bañ koo bokkaale dara ñu jaamu ko si tawxiid kon mu ne arrabiatu achara fukkeel dig ñeent mooy maarifatu xaqil ibaadi alayhi ida addu xaqahu ñu xam xaq bi jaam yi am ci yàlla waaye nag buñ matalee seen xaq ñoom ba pare maanaam suñu borom dafa am lu mu warul boppam ne danaa leen ko defal waaye nanu yéen tamit daf leen li ngeen li leen war ba pare ma doog leen kaa defal ndaxte fële dane wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i waaye ida daani bu fekkee man la woo sa jaam yi bu ñëwee yow yent bi laaj may kan ne leen man may ki leen jege ujibu damay wuyu daawata daa'i woote aji woo waaye ida daani bu fekkee man kese la woo waaye bu woo bu ma wooy boo li fekkee ne nag ma koy bàyyee kooku ndaxte ana akhna shuraka yani shirk man ma gëna womal ñin may bokale yëp man amila amalan asraka fihi ma ghayri taraktu wasirkahu kep ku jaamu ak jaamu wala nga may ñaan boole ci keneen ma bayila laa kooku kooku ji ma faj aaju te duko mëna fajj ndax koku ci bopam amna aaju bu bu wut kon mënul fajj aaju yàlla rek moy kii mëna fajj aaju mo ne nak warna ci si nit ñi ma'rifatu haqqil ibadi alayhi ida addu xaqaw ñu xam haqq bi yàlla am ci jaam yi bu jaam yi matalee xàq ba bu fekkee ci jaam yi jaamu nañ yàlla wéetal ko yàlla tamit moom moo warul boppam dugaleen àjjana ndax yonent moo ko ne yàlla du mbugal kenn koo xamante ni bokkaale woo ko ku bokkaale yàlla yàlla du la mbugal mu ne alxaamisatu achara fukkeel beeg juróom anna haadihi almasalata laa yaxrifuha aktharu sahaaba mu ne nga dégg si ne masala bi nekkate ñu ëpp sahaaba yi xamuñ ko woon maanaam ñu ëpp sahaaba yi nekkate xamuñ woon lii yonent wax ndax yonent bi mu ko laaje Muaz Muaz xamugo ko daf ko allahu wa rasul alam ba pare bim bi ko ko waxe pare Muaz ne est ce que du ma dem yëgal ko nit ñi dëgal len ci mu ne bu len ko wax ndax bu len ko waxe dañuy wakilu ci lolu legi nak ni ci dege moy li upp li saxaaba yi xamuñu ko woon أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر صحابة من الثالثة عشرة فكيل بيك جروم بين لنكي ديجي موي جواز كتمان العلم للمصلحة من خم خم من نكو نبو سي مصلحة بفكر خم خم بي وونا لبوكو جانغالي baaxu ci nit ñi jigul nit ñi xam nga yent bi dafa ne kep ko xam ci man ben hadith nang nga ko jàllale ba pare tere mo hazmu wax li ndax te fofu lil maslaha manam njariñ motax motax moo day dan nan ci mo kii woote ci yàlla wala ki taxaw al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar di tere lu bax di digle lu bon mum dafa ro xol maslaha bi manam gis na nit ñi di def lo xamanteni safan la baaxu waye mu xalaati li lii bu leen ko tere man nañ dem ci lu gëna bon mu ne kon na leen bàyyi ci lolu gis nañ jamono ibnu taymiya sax moom def na ma woowu ndax dafa amuñu tudde woon ak tatar ñoo xamante ni al mongol wala tatar ci jamono histoire dañoo ñëw rek tàmbalee Bagdad di ravager di yàq dëkk yi di yàq di rey jullit ñi rey boo xam ne kenn mësul gis rey bu ñaawe noonu di rey di rey di rey ba dem nag ba am pouvoir nag ba commencé am doole waaye ñoom dañ si booleen ak kàccoor léegi nag ñu taxu fa li naan naan sàngara nag bi am borom xam yi ne te ñoo dem ne waar leen leen naan sàngara baaxul im tamit leen bu ngeen leen waaree ban bàyyi sàngara gi ban nekk nit day continuer waat di yàq kon bàyyi leen seen ak mandité googu moo gën ñu ñëw di rey nit ñi ndax rey nit moo gën a foor naan sàngara kon gis bàyyi na leen ci seen mbonte googu pour mën a fekk mbonte gu gën a rëy moo tax mu ne jawaazu kitmaanil ilmi lil maslaha mën nañ nëbb xam-xam ngir intérêt bu fekkente ne gis nga ne maslaha bi mooy nga bañ koo wax ndaxte bu fekkante ne yonent bàyyi na Muaas bay Muaas siiwal ko kon nit ñu bëri léegi dañ naan ah gannaaw ku bokkaale yàlla boo deewee yàlla du la mbugal kon man léegi léegi naa fexe rek ba du ma yàlla bu nu wootee julli ma ne ah man daal tawhid naa fexe bu wéetal sama xol yàlla kese si nekk te loolu bàyyi julli bàyyi julli ngay ja bàyyi julli lan mooy tey bàyyi julli mooy sa xawaa kon yow sa xawaa ngay jaam kon dugg nga si sirk loolu foofu loolu ngay déggeen tamit xikma bi yonente sansam joxe foofu mu ne as a achar fukk ak juróom ñaareel bi mooy istihbaab basharatul muslim bi maa yasurruhu sopp gën sopp bégal nit ki ci lu ko loo xamante ni sopp nañ nit ki nga koy bégal ci lu ko neex ndax bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee Muaz yi rek Muaz dafa ne waaye te maa dem bégal nit ñi kon moom sawar na pour bégal nit ñi ñu ne fexe bay bégal nit ñi jullit ñi nga fexe ba leen di bégal loolu lu baax la nga leen bañ di tiital ndax yonent bi nee na tamit yéen ñi ñoo xamante ni yéenay jàngale bashiru naa ne na ngeen di bégle wala tunaffiru bu leen tax yi nii leen wax nit ñi leen tax ñuy ñëw waye bu leen wax lu tax ñuy dem deegal ab julit lu bax la istihbab basharatul muslim sopp gin sopp ñuy deegal ab julit bi maa yasurruhu si likoy koy lo muné as-saminatu ashara fukel beeg juróom ñet al khawfu min al ittikali ala siati rahmatillah ragal gin wara ragal def tawakul bokkul ak def tawakul tawakul moy nga bàyyi ne ah in yàlla ku bëri yërmaane la yàlla du mbugal ken yàlla du bind ken diko mbugal ñu bari lol lañuy wax mooy nag da nga cee war a dégg alxawfu ragal minal itikaal yi ci wéeru ba mu ëpp ala siati rahmatillah ci yaatu bi yërmaane yàlla yaatu ndax yàlla dale wa rahmati wasiat kulla seen sama yërmaane moom yaatu na ba ñëpp xaj nañ ñu wëri nag fa lañ koy kal rek ne gannaaw yërmaane yàlla yaatu na moom man naa fexe ba matal samay julli naa fexe ba woor sama weeru ko maanaam li tax nga nekk jullit naa ci nekk ba pare sàggane xaqu nit ñi sàggane yu bari daal te yàlla dane wa rahmati wasat ku la see nun sa teg fa sa aktubuha lilladina yattaquun sama yërmaane yaatu na de waaye ñi am taxwaa ñoo koy moom ñoom laa ko bindal fa sa aktuba dina ko bindal lilladina yattaquun ñoo xam ne ñoo ma ragal ñu am taxwaa moo tax mu ne alxawf ragal min al ittikaali ci weeru ba mu ëpp ala siat rahmatillah ci yërmaane yàlla bu yaatu bi at taasiata achara fukkeel beeg juróom-ñeent qawlul mas'ul amma la ya'lam allahu wa a a'lam mu ne di nga ci déggee nit ki mun la laajee loo xamul nga ne yàlla ko yonente a xam ndax Muaaz bi koy su yonente bi alayhi salaatu salaam laajee daf ko ne allahu wa rasuluhu a'lam ndax xamul mu ne kon yàlla ko yonentem ñoo xam moom wóor na ko yàlla ko yonentem ñoo xam saxaaba yi bëri na fu xadis yi ñuy jàng bu leen yonente bi laajee danaan allahu wa rasuluhu a'lam dana xadis man jàngoon xadis jibril ba fa ba jibril ñëwee am lu mu wax ba yonente tontu ba mu dem da leen ne est-ce xam ngeen ki fi nekkoon kan la ñu ne ko allahu wa rasulu alam ñu ne allahu wa rasulu alam même ba yonent bi génne àdduna bu la ko laajee ci wàllu diine war nga koo mën a wax ndax dama am ñu ne man waratoo wax allahu wa rasuluhu alam benn borom xam bu ne wax muhammad aman mu ne rahimahullah mu ne war nga ko mën a wax léegi léegi xam ne war nga ko mën a wax mooy bu fekkee ci wàllu diine la mënoo see xam lu yonent bi xamul konente yu génn àdduna de mais lépp lu ne laaj ci diine man nga ne ba tey allahu wa rasuluhu alam ndax yow mënoo xam ci diine la yonte bi xamul woon ndax loo xam ci diine te yonte xamu ko xamal loolu diine amaa bu dee mbirum àdduna nag kooku allahu alam kese ndax yonte moom xamul man xamul àdduna lépp mais bu dee diine yonte bi lépp la xam moo tax lépp loolu laaj ci diine man nga ne allahu wa rasuluhu alam même bu yonte bi génne àdduna mais bu dee wàllu àdduna la moom allahu alam kese moo tax mu ne qawlul masul dañ ciy jàng wax ki nga xam ne laaj nañ ko amaa laa yaalam bu xamut ci wàllu diine mu ne allahu wa rasuluhu alam yàlla ak ab yonentam kese ñoo xam al ishrun ñaar fukkeel bi mu ne jawaazu taxsiisi baadi nnaasi bil ilmi duuna baadin dagan gi nga xamante dagan na nga jagleel nit ñi benn xam-xam bàyyi ñeneen ñi yaa ngi jàngale benn xam-xam nga xam ne kii boo ko jàngalee mu jariñ ko te boo ko jàngalee mën na koo bañ a jariñ nga jàngal ko kii ndax yoon dafa am confiance ci Muaz xam ne bu ko waxee li tamit du tey Muaz dana gën a góorgóorlu jaamu yàlla waaye am na ñoo xam boo ko ñoom fa la ñuy toogee dootul jaamu yàlla ne gannaaw ku bokkaalul yàlla doo dugg sa war a moom man léegi doo doot ma damay def li nga xamante ni rek mooy santaane yàlla te fexe ba duma ma bokkaale léegi nag boo sàggane nag loolu moo lay mujj dugal ci bokkaale ndaxte bàkkaar yi yoon wi lay yóbbu ci sirk te sirk mooy yoon wi lay yóbbu si naar sawara yàlla si yàlla musal moo tax seytaane moom bu ñëwee moom bu ñëwee du la wax bokkaale la da benn bàkkaar bu ndaw la la wax gis nga ni mu fexewoon ba nax nitu nuux yi alayhi salaam dafa ñëw ne leen nit ay nit ñu baax ñu ngi fi woon ban fi jógee yéen da ngeen a sàggan jaamu moote leen yàlla waaye tey ngeen a jël nit ñu baax ñooñu daal leen a ay istati rek ay istati seen nataal teg ci bërëb yi ngeen di jaamu yàlla nga xam ne bu ngeen leen gisee rek da ngeen di xiir da leen di yàlla ñoom ñu ah lii de la xamu ne seytaani moo leen ko xiirtal léegi nag ñoom ñu def ko yatt ko ñoom ñak ñaka yattoon ñoom jaamu woon jaamu woon istati yooyu ñoom dan daa ñu ah kii kat ku baax la doon jaamu yàlla kon naa jiima mel nan mel da daa dëgg da daan julli da daan saraxe da daan woor kon naa ji mel noonu ñu ñu góorgóorlu gën a sawar léegi ñu wax ña yettoon xërëm yi ña yettoon istat yooyu ban fa jógee seen i sët ñëw seen ñooñu seen i sët dem seen i sëtaat ñëw ña ña ña mujj a ñëw ñoom xamuñu la xew ñoom bi ñu ñëwee istat yi rek dañ ne ah ñii de yaa ñooy yàlla yi seytaan da ñëw nen waaw ñii ñooy ñi nga xamante ni bis bu ngeen soxlaa bu taw bu ngeen soxlaa taw amu leen taw bu sécheresse amee da ngeen di ñëw si fii rendi fi seen i rendi jaa tëgg fi li ngeen def jaamu yàlla jaa jaamu leen bu ko defee nag taw taw daal di wàcc bu ko defee foofu la cirque bi di commencé nga xam ne seytaane ci benn bàkkaar bu ndaw la lay teg ngay avancé ndaana bu dugal la si bokkaale ndax xam na ne feek bokkaale woo moom rëccagoo maanaam feek bokkaale woo rek rëcc nga léegi nag moom day fexe rek ba bokkaale bu ko defee boo bokkaale nag mu xam ne waa ji moom jàpp na la mu dugal la ci nga xamante mooy piège bi yàlla si yàlla musal léegi nag mu ne alxaariyatul ishrun ñaar fukkeel ak benn bi tawaaduhu sallallahu alayhi wa sallama li rukubi alximaar ma al irdaafi alayhi nga gis suufe gi yonent bi suufe woon yonent bi mooy ngën ji mi néer moom dafa war mbaam jël ab saxaabaam ci porté ko ci ginnaaw ñoom ñaar yëpp ñu war ci mbaam mi dem kooku mooy ngën ji mi néer moo war mbaam ci porté saxaabaam di Muaz ibn Jabal ñoom ñaar ñu ànd dem xam nga loolu suufee la suufeelu la kur ku koo xamante nii nag kilifa nga ci kilifa diine yi war nga roy lii ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi daa woon ñëw ci mbooloo bi mu toog ci kaw li ñuy toog suuf loolu yonente bi mosu ko nangu ñëpp ci suuf da ngay ku ñëw ku jógee fële sax xamul yonente bi fekk mbooloo mi tax naan kan moo si Muhammad si yéen kon xam ko xamul yonente bi mais bu fekkee yonente bi dañu ko tegal lu kawe wala li ka laal ay sajaada wala leen ku ñëw ma bu ñëwee day jubal si yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee day xam ne moom la kon yonente bi dafa toroxlu woon suufal boppam di ànd ak ay saxaabam nekk kenn comme ñoom nga gis même am na benn xare bu amoon nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ñoom bin li ñu amoon si ay fas bari wut woon nit ñi nit ñi ñoo ëppoon fas yi def naa fas yi moo tey fukk sax ci la yem léegi nag ñoom te yoon wi sori na te ñëpp mënuñoo dox da buñ doxee danañ sonn te ñii buñ waree ci fas yi ñeneen ñi danañ danañ sonn maanaam léegi nan daan awante fas yi par ñett nit ñoo daan awante fas wala mbaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf daan awante mbaam bi mu war ak Ali ak beneen saxaaba léegi yonent bi mu waree ba si dem diggu yoon bi mu bëgg a wàcc pour Ali yëg dañ ko ne déedéet yow mën nañ la bàyyi rek nga dem ñun ñu dox yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc ne leen ëppoo leen ma doole te go leen maa bëgg ci yiw kon yéeg leen ñu dox kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëloon maanaam boppam def def leen comme moom maanaam moom daal dafa yemale woon boppam ak nit ñi ànd ak gi mu nekk ànd ak nekk gi mu nekk sayyidu waladi aadam nga xam ne kuy sëtu doomu aadam kuy sëtu aadama rek mooy sa sang comme ni mu ko waxee ana sayyidu waladi aadam wala faxr man maay sangu képp ku aadama jur fuukare nag taxul ma wax ko dafa nekk dëgg rek ma war koo wax te dëgg dañ koy wax moo mu ni mu ne kon mën nañ ci jànge suufeelu suufeelu gu yente suufeelu di war mbaam bay ànd ak nit di ko supporté si mbaam yi mu ne athaniyat wal ishrun liñ ciy jàng muy ñaar fukkeel ak ñaar bi mooy jawaz al irdaf ala dabba dagan gi dagan nga war ci dabba ba pare supporté ci ànd ak nit ndax bu dagal loolu yonent bi ko def gannaaw moom la ñuy royloo lépp lu def dagan na mu ne jawaazul irdaaf dagan gi nga xam ne dagan na ko nga wuutal nit sa ginnaaw nga si porté ko ala dàbbate si fas wala si mbaam wala lépp lu ñuy war daal dàbba mu ne assalisatu wal ishrun ñaar fukkeel beeg ñett bi azamu sha'ni hadihi al masala li nga dégg nag mooy rëy goo xamante ni bii masala muy tawxid rëy na ko tawxid mooy masala boo xamante ni bu rëy rëy la ndax gannaaw lépp lu yàlla di digal buy digalee lu bari sax lim ci jëkk digle mooy ñu wéetal ko bu yàlla tere li muy jëkk a tere mooy ñu bokkaale woo kon loolu moo ne kon muxaddima bi imaam Muhammad imaam wax defoon ci téere bi kon xam naa dañ yemale foofu wax bi comme mu muxaddima la ti ñaan suñu borom subhanahu tam taala mu jéggal ñu li nga xamante ni mattu si te nangul ñu li mat te yàlla boole leen si nga xam ne bu déggee wax topp lu si gën a rafet ndax te li gën a rafet ci wax mooy dëppoog li yàlla wax rek moom mooy alxuraan ak sunna kon سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله